خمين الجبنة الشيخ سرين توبا سن التعلم أتجانجا سلمه جبل نقو والده واجر مبور لخاله نيال نجايا محمد ابن محمد بسوف من محمد بسوف سرين بسوف شقيق أمه كبوك الله يكبعي waajuram bu jigéen ak saalihati ki aji baax na bi sëriñ Touba tollee ci ati jàng waajuram sëriñ Maam Moor Anta Sali daf koo jébbal nijaayam sëriñ bu soobe mi nga xam ne mook soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay fabtada amu daal di tàmbali nag fii taalimihi ci ak jàngalam xatta taraaraa ba mu dëgër xalilan tuuti summa lamma tamahara topp ba nga xamee ne ñaw na mooy bi mu demee ba tàmbalee yow ci njàng sallamahu jébbal na ko alxaalu nijaay ja ilaa xaalihi jëmi ko ci nijaayam huwa moom aydan ba tey wa xaali ummi cheikhi tey nijaay yi waajuru jigéeni sëriñ bi tafsir mbàkke ndumbe ابن محمد صهنا بوسو ابن محمد الكبير المذكور مدينتي وهو تمام تفسير باكن دومبي شقيق جدة الشيخ مو لايك ندايك بايك مامي سرين بي امي امي كي واجرو واجرو بي عائشة عائشة فكان نيكون عنده فموم يمكسون نيو صح في مباكي في مباكي وقت الصيف في وقت الشورو وفي الخريف تنوير في جلوف منك في جلوف غالبا تلي جنا نب ولي جنا بريرك حتى توفي بفاتف المفسر أجفريج تم تفسير وقد قارب وتنوير جيجين تنا ممسرين بي من في مبقى نينا جنا بسرين بسوبي دلالي سرين توبا جانجا بام تامبلي دغر با تامبلي ييو تي جانغ مي سيرين بي سوبي da jël moom it jébbalaat ko nijaayam nijaay boppam moom sëriñ bu soobe nijaayam jooju nag moo tudd tafsir mbàkke ndumbe mook soxna astawaalo mi nga xam ne mooy maami sëriñ bi ñoo bokk ndey ak baay sëriñ bi nekk foofee ca tafsir mbàkke ndumbe jamono boobee nag nee nag li gën a bari ci liñ daan doxale mooy bu waxtu cooree ñu nekk mbàkke su waxtu nawet bi dikkee ñu dem jolof bay nee na loolu moo ëpp ci liñ daan def waaye nag tekkiwu na jamono bu nekk rek noonu lañ daan doxale nee na ci loolu lañ nekk nga xam ne moo ëpp ci liñ daan nekk sëriñ bi moom nekk tafsir ba ni yàlla dogale tafsir génn àdduna booba nag fekk na sëriñ bi jege mokkal alquran mel na ni suñu mudlaa ràññeelewut at yi nga xam ne ci la sëriñ bi dal waaye mel na ni teel naa dal ndax wax nañ ne bi mu amee fukki at ak ñaar ci la jël wirdu xaadir axbarani xibaar na ma baadu siqaati lenn te ñu dëgërloo seeni wax kooku nag mu ngi ci jublu sëriñ Aafiya Ñang mi nga xam ne moom sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Tuubaa ñoo bokk wenn waajur wu jigéen sëriñ Aafiya moo ko nett li li muy waajo wax ne ko am na cheikh naa naka sunu sëriñ al mutarjama kadi kuñ ay jaar-jaar la hoo ñeel ko axbarahu xibaar na ko ne am na lawxahu naka aliwoom balaxa egg na la tajidanna la tajidanna waqta wafaati muallimihi ci waxtu faatu aji jàngalam almaskuuri jëli juñ tudd suñu Lamin nee na suñu afiya ñam moo ko nettali ne ko waxtu wi nga xam ne ki ko doon jàngal muy sëriñ tafsir Mbàkke Ndumbe mingi ngi génn àdduna nee na booba alliwa mi ngi toll la taji dan serigne afee ñang serigne Touba moo ko nettali boppam su ma rajaa topp mu dellu nag moom serigne Touba ila walidihi ci waajuram ba serigne Mamour abdou Sali wajtahada mu farlu li nafsihi ñeel boppam hatta hafisa ba mu wattu wa jawwada tamu tajwid wa saxaxa tamu mu beqi minal musaxixiina ci kaangi إذا كنت وقت وغير كل ذلك للبن بقرب والده تجيك واجر مولا ولا يغيب لفرد عنه ولسكو إلا قليلا ندري لنيو نانا جناو بسرين تفسير مباك اللمبي واتي أبلغي سرين تبادا دلو سيوات تسرين مامور أنت سرين بمدكي نك تفرلق بابا تلا تحاو بموكال القرآن ba tajwid ko beqi ko ci kàng yi ñu toppal ko loolu lépp fekk na booba daawul soranteeg waajur boobu la sëriñ ma mënante sëriñ ndax wala lu néew a néew rek lay lay fàggu li anna axaahu ngir naka mbokkam makat ashaqiqa kay aji bokk ndey ak baay muhammadu jaara te mooy sëriñ Maamoor jaara kaana nekkoon na inda baadil musaxxiina fa lenn ca kaangeer xaarija xaritihim ci bittib seen dëkk ba rubbama yatihi baraana mu di dikkal yam usu di sax maahu ak moom shahran wer aw shahrayni wala ñaari weer tumma yarja top mu dellu nee na fekk na Mamor Jaara mom ma nga woon ca kànga maanaam ña nga xam ne ñoo mokkal alxuraan te ci dëkk la léeg-léeg Serigne Touba daana ñëw ci moom def fa weer wala mu def ñaari weer daal di delluwaat ci Serigne Mamour Anta Sali wa nekkoon na iddaaka ba loolee fii Saalum ci Saalum ay yaamal mujaahidi ca yi eh, aji jihaad ja maba te mooy maba joxu wa te nekkoon na ahlu baytihi waa këram muy waa kër Serigne bi hushiroo pangeef leen. fii man ci mbir ñi nga xam ne hushira pàññeef na leen maa maba ñu ànd ak maba dafa amee maanaam fii man hushiru bal li fi nekk wa ahlul baladayni ak ñooñ waa ak ñooñ ñaari dëkk ya jolof te mooy jolof wa jullu bawal ak lépp ci bawal nee na jamono jooju ñi ngi Saalum ndax moo tolloog jamono yi nga xam ne ci la maba di woote jihaad Maba Jaxu dafa bëggoon a taxawal eh, nguurug lislaam daldi di song eh, ceddo yi fi nekkoon ak ñi doon jaamu xiram ginnaaw bi nag mu ragal ne ñooñu danañu fayu ci jullit ñi tax mu dajale julliti réew mi yóbbu leen Saalum fa moom ngir jàpp ne foofu lañ gën a mën a ame kaaraange ngir mu mën leen a yiir jamono boobu nag ñim doon dajale waa jolof dañ caa bokkoon ak waa bawal ci biir loolu sëriñ Mamour Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ bi daa bokkoon ci ñi nga xam ne Maba daf leen a yóbbu woon Saalum loolu moo leen yóbbu woon ñoom Saalum wata raajaata dellu na annaasu nit ña baada wafaatil mujaahidi ci ginnaaw faatu Maba Jaxu mu aji jihaad wa rajaata dellu waalidoo waajuram wa fii man ca biir ña nga xam ne rajaa dellu nañ rajaa boobu dafa amee maanaam rajau maa lat joor ànd ak lat joor wa baqee te des alxaalu nijaay ja te mooy sëriñ bu soobe wa ailatuhu ak njaboot ga hunaalika foofe ca saalum wa baqee te des almutarjamu kadi waxtaane ay jaar-jaar lahoo ñeel ko fii man ci biir ña nga xam ne bàq ya des nañ bàq ya ko dafa am maanaam baqu dafa amee maanaam baqaw li taallumin ilmi ngir sàkku xam-xam nee na ginnaaw bi Maba faatoo kenn ku nekk da ngaa delluwaat sama jóge woon Lat Joor nag bi Maba di woote jihaad fekk na moom mu nekkoon dammeel ca Kajoor waaye mu réeroo woon ak waa Kajoor daal di génn ñëw Saalum ngir Maba fataale bi Maba faatoo nag fekk foofa la xamante ak Serigne Mamour Anta Sali ñu xaritoo fa lool jàppante fa bi Maba faatoo ba kenn ku nekk di delluwaat fa nga jóge woon waa Kajoor moom nangu nañ Lat Joor dellu siwaat ci ñoom bi Lat Joor di dellu nag nga xam ne nangu nañ mu dellu siwaat nekkaat dammeel na ko doone woon bi Lat Joor di dellu dafa wax sëriñ Mamour Anta Sali ne ko dama bëggoon ñu ànd su ko defee bu ñu demee may diisoog yow ci àttey lislaam yi loolu moo waral sëriñ Mamour Anta bi mu jógee Saalum mu ànd ak Lat Joor ñu dellu Kajoor sëñ bu soobee moom dafa des Saalum moo ko njabootam mu demut euh, sëriñ bi it foofee la des daa bokk ci ña desoon foofee summa charaa topp mu daal di tàmbali nag yataallamu di jàng min ammihi ci bàyyi taxam ba sàmba tukulóor ka ibni xaalati abihi kay doomi ndey waajuram sëriñ Maamor Anta Sali xataa xaraa ba mu jàng alayhi ci moom mabaadi al ilmi njëlbeeni xam-xam ya wata mahërata mu ñëw baada tamahuri lenn ci ak ñëw bi yàlla dogalee nag maba faatu ba nit ñi delluwaat fañ bàyyi ko woon sëriñ bi des Saalum foofee la tàmbalee jàng xam-xam ci ku ñuy wax sàmbatu Tukulóor Ka Sàmba Tukulóor Ka nag moog waajuram ay doomi ndey lañ sëriñ bi jàng ci moom téere yu njëkk yi lu mel ne ar risalatu nu abi zayd al yi wax nañ ni ci moom la ko jànge ak yeneen i téere bi mu demee nag ba tàmbalee amug yeewute lool ci njàng mi su ma rajaxa topp mu delluwaat ilaa waaridihi ca waajuram léegi mu daal di jóge Saalum moom Serigne Touba delluwaat ci Serigne Mamour Anta Sali wakaana nekkoon na alwaaju alwaalidu waajur wa fii Pataar ci Pataar Pataar nag yi ab dëkk la pour ba xurba xasri Hamadou Yàlla ci wetu kër Amadou Yàlla maskani Lat Joor may kërug Lat Joor ca boobee bi sëriñ bi jógee Saalum daa fekk si waat sëriñ Mamoor Anta Sali fekk booba mi ngi Pataar Pataar ab dëkk la boo xam ne mook kër Amadou Yàlla soréewul kër Amadou Yàlla nag mooy mooy mooy dëkkuwaayu Lat Joor la Lat dëkk li annal amira ngir naka dammeel Lat ngoone kaana nekkoon ne yu xibbuhoo di ko sopp moom sëriñ Mamoor Anta Sali gaayatan dayob cofeel wattaxasahu te mu jàpp ko cheykhan muy ëpp sëriñ mu mu saawaran bu di buñ diisoo yarji'u ko gën a dellu ila ra'yihi jëm ci ay xalaatam nee na Lat Joor ci boppam moom moo soppoon sëriñ Mamour Anta Sali dayop cofeel def koy sëriñ boo xam ne day diisoog moom ci ay xalaatam euh, day diisoog ci atte yi ak di ko diglu mu di ko xelal wa nekkoon na wa maa kaana moom وما كان نيكوتون لهودي كو نيال موم سيرن مامور انت سري رغبه خيمم تيف في مجاورتهم في لكالك نيوم اذ غير لا يرغب خيمم في اموالهم سين علال ولا في عز ملكهم دو تيغني تيد غي سين بو وانما الجاته نك لور لو نكو رك الى موافقتهم جيم تي ديبونتيك نيوم ومداراتهم اك لنخنتيك نيوم مصالح العيال مصلحه نيبونتيك yuskinuhu dana ko dëkkuloo xay su na fa mu dëkk nee na Lat Joor moom moo bëggoon sëriñ Maam Moor bëggit mu di ko jege di di muy diisoog moom ci attey lislaam yi ak di ko laaj xalaat waaye sëriñ Maam Moor moom amutoon amutoon benn xeemeemteef ci dëkk ak buur yi amutoon xeemeemteef ci seen alal wala ci seen tedd ngay nguur goo gi ñu yore waaye nag la taxoon mu dëkkaaleeg ñoom rek mooy ndem la jor dana ko dama bëgg ñu ànd ma dila laaj xalaat ci atte islam bi xam nga lolu tiyabu ju màgg ci ak it mu xol maslaha ak njabot bi lolu moko taxona deppo ak ñom ci lolu wa kaana nekkon nak nag a cheikhu sëriñ Mamoor Anta Sali yaqbalu du nangu an yu saakinahu ci mu dëkk ak mom fi aasimatihi ci capitalam li annahu ngir naka mom sahibu taallumin borom jàng la وتعليم الجنجل وتعلم تام جنجل وتعليم الجنجل لا يجاني ساني دنيو خيطون تيك الإمارة أكبر بل لفنك يسكن ليلك بخربه تيوتم بحيث إذا احتاج تفو خمنا سوكو سوغلا سوغلا إليه جمتي موم يأتيه مدكالكو بلا تعابين كنو دل بن تشونا ولا بطئن تشاكنا أجيه سي مامور أنت سليموم بغوتو نو دكك nguur yi ci jamono boobu ndax moom xam na ni ab sëñ daara la te jàng ak jàngale xeetoowut ak mbirum nguur mënuñoo mënuñoo méngoo moo tax dañ daan def bu Lat Joor dëkkee ci barab sancal ko ca wet ga barab boo xam ne du soree ak moom waaye duñ laale ci dara su ko defee bu ko soxlaa mu mën koo wuyu si te du ci toggoo benn coono te du yeexaat si waaye daawuñ bokk dëkk ci benn dëkk moo tax Euh, kër amadi yàlla ak pataar boo xoolee seen diggante ab séenante la Lat moo dëkk kër amadi yàlla suñ Maamor Anta Sali dëkk pataar su ko soxlaa woolu ko mu ñëw ñu laaj ko dañ koy laaj ci lislaam mu tontu leen daal di delluwaat ci ab dëkk ba ndax moom la lan nekk méngoowut ak li ñuy nekk wasakana dëkk la nag maa waalidihi ànd ak waajuróom moom Serigne Touba daal di ñëw foofu pataar dëkk fa ak waajuróom Serigne Mamour Anta Sali yataallamu di jàng minhu ci moom mujtahidan mbir mu mu aji farlu fi la xifsi ci mokkal wal itqaani akub xereñ wa tafahumi akub dégg xataa baraa ba mu raw fil fununi ci xeeti fànn yi na bi Serigne bi ñëwee nag nekk foofu daal di jaaju nag ci njàngum xam-xam yi doon ku mën a mokkal. doon ko amu xereñ ci njàng mi waaye doon ko am ak dégg ba mujj nag mu daal di nekk koo xam ne mbooleem xeeti fànn yi ñu fay jàng mooy ko ca raw wa fi adnaa'i haadihi l muddati ci biir bi léb diir kaana nekk na moom Sëriñ Tuubaa ya'ti di dikkal alxaadiya ma jaxate kala xaadi ma jaxate kala wa huwa moom saakinun aji dëkk la ma al amiri ak buur ak ak buur buur buur bi la joor خاضيا مرمي أجي أتله نيل باري عن تأجروا في فنون العلم تفاني خم خم ولا سيما روان تنقل العربية لك عرب مشتهرا تأجي سيو بجودة الشعر كرفة قوي سرين جدانو كل كليا قوس ديجل منه تمام دقائق العربية سيسوي لك عرب وأسرارها أي سكرب وربما يأتي برانم برانم إني بأبيات أي بيت قالها يوحنا وحنا هو مومتي وقم فينظر موي خول في إعرابها تي إعراب با وعربيتها أك دكونتي مك لاكو عرب وعرودها أك عروب با موي ني بيسي وي أك مجوك بادي موي خوافي ربما يكسر برانم دم له نيلكو أولا تي نجل بين ba tey mën naa amee maanaam awlaa wala déet mën naa mën naa am mu dam wala mu ñàkk a dam xataa faataho ba mu faat fa a cheikhu sëriñ fa saara te mujj kullama arada saa bu gaaralee alayhi ci moom chey an min chiarihi ci ay wayam xaala mu wax loxoo ñeel ko ne ko iti indi bihi ci moom mën naa am it maanaam aji indi nga bihi ci moom ah ngir ma mokkal an ka ay lu mu namm ay shay mbir ma fii hifsihi nekk na ci ak mokkalam laa fi tasxihi waaye du ceeg ne ak toppam hakada ni ki nii nag xaaluhu mooy mbiram moom sëriñ bi maa alxaadi ànd ak xaadima jaxate kala laa xiraatu kitaabin waaye du ceeg ne jàng ab téere taam min bu aji mat mustaqillin bu aji temm bu aji temm mooy bu aji beru nee na diir boobu nga xam ne sëriñ baa ngi ci waajuram sëriñ Mamour Anta Sali bi ñu nekkee Pataar booba fekk na boroom xam-xam bu mag bi ñuy wax alxaadi ma jaxati kala mi ngi bokk ak Lat Joor benn dëkk te mooy kër Amadi Yàlla mu daan àtteel Lat Joor moom nekkoon ku am ak raw ci fànni xam-xam yi rawante naag nag xam-xamu arab jamono boobu bokkoon na ci ñi ko gën a dégg gën koo rafetle gën koo neexle waye siiw lol ci rafetuk way manam mana way lol xaadima jaxati kala mo talif tere bobu ñu tuddé mu bayyinu iskal ci al arud wal khawafi serigne bi daan ñëw ci mom nak di jël si ci mom sew sewi lako arab ak seeni mboot leg leg serigne bi talif ay bayit indil ko xaadima jaxati kala ngir mu topal ko su dikkee xaadi liko xolal i'rab bi ak diko xolal ba xam Euh, bëy bi dëppoonte naag waxinu arab xoolal ko ni ñu peesee way yi ci misaanu shiab xoolal ko it euh, xaafiye bi ba xam moom it dëppoo naa a demee léeg-léeg mu gis ci loo xam ne da ko ko jubantil walla mu ñàkk ko cee gis ba tey mën naa jàntalu it léegi njëlbeen nga daana gis lu mu ko ci jubbantil waaye nag mujj gi mu dem ba nag loolu mënatu ko cee gis mujj gi bu fekkee saa bu sëriñ bi indee ay bayit gaaral ko ko xaadi dinaan ko ah indi ko ngir ma mokkal ko waaye doonatuma ku ay toppal wax nañ ni sax daana wax sëriñ bi naan ko maag sa waajur sëriñ Mamour ànd Sali ñoo doonoon say sëriñ di la jàngal di la tegtal yàlla léegi nag raw nga nu jiitu nga nu fa yàlla kon yaay sunu sëriñ yaay sunu baay noonu la doon jëflanteeg xaadima jaxate kala ci wàllu jàng waaye doonul koo xam ne nag daf koo jàngal ba ab téere tàmbale ko ba mu àgg kon xaadi euh, laal na rek dara ci xam sëriñ bi ci fànn bii waaye doonul koo xam ne daa jàngal sëriñ bi benn téere boo xam ne mën nañ ko tudd na téere bii xaadi moo ko jàngal sëriñ Touba. وكان نكون أيضا بدنا هنالك فوفة عالم أجخم من علماء البيادين كواي خمي نبني ويخني في مدينة جاني كي لكم جاني يقال ديسنا وخلوه نيالكو محمد بن محمد الكريم من بني دايمان بوكونتي وابنو دايمان فغضي أولادي سيد الفاضل بوكونتي جيرو دومي سيد الفاضل والعامة مبالغ منك عندنا فنون يسمونه دنيا قوية محمد محمد اليدالي محمد اليدالي وهو ممنك غير صاحب الذهب الإبريس دون برم الذهب الإبريس في التفسير في تفسير إذ غير ساكا كوكي يدالي كوجو يدالي لا دايماني كوجو دايمان لا حديم تأجي ربما ياتي هبران سيرين بي ديكو ديكل ويقش تموي جيل من هو موم طرفا اك من علم البيان تي علم البيان واظن جورتنا ني خال واخنا والمنطق اك علم المنطق في بعض حكايته تي لين تي اي نيت لين لانا نيل والله يالا نك اعلم مو خم دك دك جامن بوبا ييت امنا بن نارو موريتاني بو نيكون فوفو تي نجاج نجاج با تاي خم نغي سوري dëkk yooyu ñu tudd léegi muy Pataar ak aham kër Amadou Yàlla mi ngi tuddoon nag Muhammad ibnu Muhammadinil Karim noonu la naar boobu tuddoon waaye nit ñi ñu ko gënoon di wooye Muhammad al Yadaali nee na Muhammadul Yadaali moom nag bokkut ak Muhammadul Yadaali mi nga xam ne moo taalif euh, Dahabul Iblis kooku bokkut ak Muhammadul Yadaali mii nee na Muhammadul Yadaali mi nga xam ne moo taalif Arrahabul Ibris moom nee na ku yàgg la te ab Yadaali yi la ab day ab daymaan daymaan yi nee na sëriñ bi nag daana ñëw ci moom daana ñëw ci moom Muhammadul Yadaali yi moomu nekkoon njaañ dafa jàng si dara ci ilmul bayaan ilmul bayaan fànn la goo xam ne mooy jàngale taaru wax ba nga xam ne ci ngay mën a ràññeele alquran ni mu gën a rafete xeeti wax yi sëñ Mourou Lamine nee na mënuma cee doogu dëgg-dëgg waaye jàpp naa ni jortu naa ni daal sëriñ bi mas nañoo nett ni tuddaale na ilmul mantiqi jàng na ko ci moom waaye nag taxul ma mën jël doogu dëgg-dëgg yàlla rek moo xam